di fas yéene dugg ci biir waxtaan bi di leen jottali kàddu nuyoo ak kàddu cant ak kàddu ngërëm yu bàyyi ko ci ci su nekkee jëmmi Serigne Touba di Cheikh Mamadou Mountakha di ko ñaanal ba mott bi mu waral ay yéene ak i naaram te dara génn ci liggéey Serigne moom kilifa bu ma sëkk kilifa kilifa boo xam ne li ñuy doole kilifa foo ko gisee rek sax dem ci yoon mooy delloo ci sa borom moom xam ne itam ku ko xam ci mën a muñ mën ak fàtte boppam lu néew néew la muy jëmbu joo xam ne la ko waajuróom Cheikh moom ba si seeraloo rek ne ki ma jaaxal de mooy Muntaxa ndax moom daa bëggul dara moom kaa bëgg naa dara de waaye dama bëgg moo jafe kon kilifa bu mel noonu bu am war ngay fàttali bu baax ci ginnaaw bi nga nekk ndax buñ ne sëtu seere mooy sëtu Serigne Touba bi njëkk a taxawu doomu Serigne Touba ci ndigalu Serigne Seere bi mu demee ba doomu Serigne Touba yi noppi jiite ci jullit gaa xam ne itam Serigne Sary moom la tànn taw ñu ko wax ci woon kon le Serigne daa wax rek lu yées ci adduna mooy xam xam lu amut ak am lu amut kon yàlla nañu yàlla dimbali waaye ñu topp ci gànnaaw li suñu kilifa ndax moom kat kenn mënu koo xeeb ci dara du ci jikko du ci jëf du ci xalaat du ci doxal. te yitteem yëpp génnut yërmaale ci nit ñi génnut bëgg ñëpp am jàmm boole ko jaam yàlla bu ma sëkk te bu fépp jëfam génnee ñëpp xam ne jëf ci dara mu jaaxee ma ñu koy ñaaw yàlla ci daal di nuyu suñu yu tedd yi nga xam ne moo leen jox ndigal yàgg na ba Cheikh Mawal Diop Ba la liggéey bi teg ko ci sama loxo maa ngi fàttali suñu soxla Sëriñ Mountakha moo woote woon ci kër Sëriñ Tuubaa ñëpp toog boobu Cheikh Sidi Moustapha bi nekk mooy ci at mu njëkk mu woote woo jëwru Sëriñ Tuubaa yëpp neen daal boobu ngeen ànd ba siiru jàppale ko ci liggéey ndax bu ma soññ bi tam Sëriñ yaa ma bëgg a seere lépp waxoon na ci ba wax ci ñëpp ba si jataay ba waxoon na fa kàddu bu diis ne bu ma ko sañoon tamal ko de man ñu maay laxasaay toog ci ginnaaw waaye du ma du du du du ma benn dina ci ginnaaw ba ba nii waxtu wala dama danaan ma li jiitu ci sama liggéey mooy sàmmal la liggéey bi ak loola ci noppal kon suñu cat ci moom yàlla suñu tubaab yi ko seetal bu toon lépp itam gi ñu xam am jàmm fu ngeen yëkkate fu ngeen déggee mu santaane bés ku xamoon lu ci dexañ ci biir ngir bëgg ñëpp am jàmm am xéwal nit ñi fu toll war nañ koy ñaaw yow ñu taal kon ñu ngi suñu kilifa yu baax yi nga xam ne ak comité organisation bi nga xam ne ba liggéey bi tàmbalee ba léegi nii ren la di fukki at ak juróom-benn wala juróom waaye boobu ba léegi nii kenn tayiwu ci kenn toxtuwu ci waxtu la seen procédure bi ngeen yokk ngir xam nañ ne suñ tubaab yi. ñu ngi leen sant bu ci ànd gi ci liggéey bi ndax loolu itam moom la Serigne Touba doxaloon ak bi aw liggéey ñoom ñëpp ci ne sama Serigne Touba lu mu wax si def ñoom la ko daal moo tax ñu ci yoon boobu la ñu mel te loolu Serigne Touba itam moom la tey te ñu ngi leen di sant di sant bu baax di jot li kàddu yi nuyoo nag. yoo xam ne ñu koy teg ci loxoom gouverneur de la région bi nga xam ne moo jiite liggéey bi ak service yu ko soxal te te ñu jiitu du préfet bu Mbacké sa sous-préfet bu Ndaam nga xam ne ndaje yi ñëppoon def ci commune Touba ca ko ak Serigne Mbacké ñoo ko àndoon ba liggéey ca lépp solo ci liggéey demaa ndaje mbàkk mi waaye dafa war a ci commune ndax mu gën a yaatu ba li ci ëpp lu waxtaanoo ak chef de service bi bu seetlu kon gouverneur mu ngi ekkati mu ngi ko ci salon nga jot nit ñi ko ku jiite réew mi tey di président Diomaye Faye ñu yóbbante nuyoo sëriñ bi ak wala ñi mu seqal liggéey te bu ñu tuddee premier ministre Ousmane Sonko tudd ci ministre de l'intérieur mi nga xam ne mooy coordonné liggéeyu mag bi ndax wàllu diine ji ci foofu la nekk di leen ñaanal suñu borom dimbali leen ba yaakaar ji réew mi am coono suñu borom koy koo tas ndax rek nit ñi moo tax ñu fàtte suñu kilifa bu baax la si Abdoulaye Mbacké daa wax ne yaar rek a fi am ci la xëyee ak ci la gontoo mu ne mu ne ci la xëyee daa tëdd bu guddi jaaxle ci biir xelam xalaat bu somb xelam dem moo ne nit waaye ni ba yaakaar ni mu tase ci yow ci la kontoo itam daa xëy woon fee ne yaakaar mu defoon fa ko yaakaar mu tase fa mu kontoo la kon dikk na moom xam naa bu ñu ci diir Serigne Ousmane bi nga xam ne mooy saytu kuréel bi nga xam mooy saytu bant bi ak mu ko àndal ak seen yaakaar danañ leeral li jëm ci wàllu liggéey fi ñu ci toll ak li ñu ci war a jooyante ndax màggal gi moom bisu Serigne Touba suñu doon def def ci def la fi ñu ko wootee tey ci daje bii di gouvernance bu njëriñ Serigne Touba fii la jëkk a wootee màggal mille neuf cent vingt et un wala vingt et un daa amul juróom nag waaye ñu génn ñaari at juróom ci la Sëriñ Tuubaa xëy bis ne natt yi te jeex na lépp des ci sama borom ak payta ak xéew màggal gi saa su aseetee xéew bi moo suñ borom defaa da koy fulaat ba mu toll noonu fii la bootoon ci ñeent yëmutoon ci woote ko wax ko waaye dafa tàj njëkk a tàmbali moom ci boppam ci biir këram mu mujj màggal gi dem ba génn pénc mi kon sëñ bi lii amul woote wa ñu fi jaboru sëñ Tuubaa ñu fa wuti di ko woote ndigalul sëriñ Tuubaa waxoon ci ay waxam yooyu ginnaaw bi tam ñu ko fa wuti ñëpp wóyul ko tàmbalee ci Cheikh Mouhamadou Moustapha bi mu fi nekkee ñu ko doon dundal ni ko sëriñ bi daa dundale te boo ko def ko rek di sa kër ba Cheikh Mouhamadou Fall Mbacké ñëw même bu woote foofa ginnaaw bi itam Cheikh Abdoul Ahad Mbacké ñëw woote wax ko bi ñu ko wootee itam Cheikh Mamadou Fall bi ñu gën a waxoon ba mu ko daa waxoon na waa fekk bi dañoo bis waa waa soow bi itam ma bëgg ñoom bis man yaakaar naa ñaanam boobu la adduna sépp tëgg nañ ci Cheikh Abdoul Ahad Mbacké bi ñëwee bi foo xam ne màggalu Tuubaa mooy suñu fête indépendance dafa wax ñëpp ñu dégg te loole itam lu wér wér la ndax fête indépendance bu agsee ci Sénégal bis bi Sénégal moo boppam ci saa yaakaar naa ñi xam nga tey kenn liggéeyu ci lañ ko yëngu ci télévision lañ ko waaye màggal Tuubaa képp mooy màggal koo xam ne boo demoon Dakar tey boo yeexee sax jafe-jafe oto bu nuyu bu la ndax bu Sëriñ Tuubaa demutoon ci géej gi kon tey lislaam dana far ci lislaam dana saa far ci lislaam dana fi lool ak tubaab dana fi lool Sëriñ Tuubaa doog ñu doogoon liggéeyee ni borom ci bis bi ba suñ borom fayoo ko mu ko fayal loolu jot suñ bopp kon màggalu Tuubaa mooy dëkk dëkk fee daan fa daal ginnaawam itam Cheikh Abdoul Khadim Mbacké da daa wax bu màggalu Tuubaa bi jub seen ñi di jàmbat réew mi dafa naqari ndax nit ñi moom noonu àdduna baaxoo mun a dem màggal gi ne jërut xalaat ndax koo xam ne yaay defar bis ñëpp sa bis mënta waxaale sëriñ Saliou nag doo ko tënkoon ci lu gàtt daa waxoon ne màggal Tuubaa de gan ñi bëriwut ndax mooy kilifa diine yi ak waa nguur gi ñu ci des ñëpp nag taalibe yu siyaare seen sëriñ daa dem moo tax màggal organise ko dafa nuur luy jafe waaye lu yomb la ndax li tax mooy taalibe bu ne dana fexe ba këram jëkk loolu la ko jàpp naa ne koo xool gis ko bi ñu fi bàyyi ko itam association moo doon bi ñuy wax tey ci nekk na tam association bi mu xaar itam ñëw bokkaat ko doon ci yu bëri bëri ba association moo doon taxaw yàlla fi yàgg taalibe moom itam daaw boobu ñooñu joxaatam dafa gën a yëkkatiwaat ngir xam ne bis bi moo suñu defoon benn suñu defoon balaa njàng ñi mu woote woon yow bokk na ci daal jox ko ndax day gën a lépp dis ko mën a leer waaye kon xam na nag Tuuba te day wutoon kon màggal gi rek du jar sori ci li tax ndax Sëriñ Tuuba. lu dox digg ba borom ka moo xëy bis wax ne loo ko ci ñëpp sant yàlla di tàmbalee ci gannaaw ba ci ginnaaw am xaafet la ci ñu créé mooy am ci màggal Tuubaa la li ci la lu ci dolli ko wax dañ ko ci dolli wax ngir xam ne lu baax la ak bañ nit ñi def lu xew waaye la mu ci digleel boppam nag te léeg-léeg ñenn ñi mel ne kuy bëgg njëriñ jeex di ko teg ci kaw waaye suñ moom lu mu ci santaane woon mooy gàncax kon màggal bi suñ gàncax loolu itam du lu jar la yàlla suñ tubaab deful nuñ koy layee bisu tabaski bii ñu weesu la suñ borom dafa wax rasulullahi sallallahu alayhi wasallam dafa wax nit defalu ci jaamu yàlla lu gën rek lu mu dem xaar kon bisu màggal ñu war a def man yanaala llaaha luhuumuhaa wa laa dimaa'uhaa walakin yanaaluhu taqwa ba ko sëriñ bi woote itam mag ñi daa ko tuddi ak tabaski waat sëriñ Sall moo njëkk wax ne moo ne sëriñ Tuubaa moo njëkk wax ne bu leen koy tabaski waat am loolu day day faat sunna Seydina Ibrahima wax dee nañ ko tuddi ak màggal baatu màggal ci sëriñ Tuubaa yi ko kon loolu moo tax ba léegi màggal bi nag moom yaari fànn la mooy fànn gi nga xam ne nguur gi ñoo koy def te la ci ëpp mooy li jëm ci wàllu ndox kon loolu itam xam naa bu ñu ci liggéey daañu wax fi ñu ci toll ak jiw yi ci def kon ñu ngi leen ci ñaar baax ñu gën ci góorgóorlu la ci des mooy wàllu assainissement bi nga xam ne dëkk bi xam nañ liñ ci jànkuwanteel te màggat gi nekk ci digg nawet bi loolu itam yéen da ngeen di yàlla faral ci tool ba ca des it mooy wàllu courant bi itam xam ngeen ne Touba ni muy di ko ndax ay deux mille trois deux mille quatre Touba mi ngi tolloon ci wega wega me weer méga la seen toll wax ak yéen nii dem na ba àgg ci cent mégawatt kon dëkk bu màgg noonu bu ngeen gisee ci jamono yi ëpp ju président Abdoulaye Wade daañu def am njort mu maye courant bu bari ci dëkk bi mu jug am daal def at mu jot ñaari at mu jug mu jumut at mu jëkk ma cinquante kilomètres lañ joxe mu mujj ma deux mille joxe cent kilomètres cent kilomètres itam dañ ko daan tas ci quartier yi dëkk bi ndax xam ngeen Tuubaa ni mu bindoo benn quartier boo dem ña fay dëkk benn kilifa bu sant ay teen jox ko ay teen woylaal mooy dëkk boo ne Sëriñ Tuubaa jox ko ndigal mu ne woon ci bitti Tuubaa Tuubaa dem ba mëdd ko la war ak si Tuubaa ak si ko kilifa boobu ñaan ko noonu lañ ko daa séddalee ci biir kër yàlla def nag 2012 bi président Macky Sall ñëwee ci nguur gi ministère ba yoroon indépendance bi mu xoolee kayit yi xamul nu mu naa nguur bi yees loolu toujours baaxoon na ci bi nga xoolee kër yi ñu tur Daaru Xudoos tur Daaru Lam tur Daaru Muxti tur Daaru Salaam tur kër Mamour Diarra tur kër Cheikh Ibrahima xaw ma nu mu mu ne man xaw ma courant buy jëm ci ay kër yi kilifa li ma xaw ko ci conseil du ministre yàlla def kumpa am ca loolu laa waral excitation yi ñu ngi koy sax waaye amul ci benn excitation bu jaaral ci kilifa dañuy def def ko ci dëkk bi ñu ngi ci dëkk bi sax duñ ci am dara loolu sax damaa bëgg mu leeral ndax kilifa yëpp dañuy ñëw ci man di ko sàkk bu ma ko mosaan sàkk fii dama ko waxaat ñu demee ba ci Thiel duñ ko def fa duñ xam ñu demee loolu daa ma fa leeral assainissement bi itam bu ngeen marché dégg ma wax ci loolu kon weesuwuma ci xawma ci lu weesoo defar nañ seen i plan defar seen i itam ba noppi ne ma fii lañ ko xawma ci leer suñu weesu loolu. man mii di wax ak yéen sama kër gis ngeen daanaka assainissement ak jiwu kon noonu la demee loolu tamit day mas a ndax nit ñi xam ne du courant boo xam ne joxeetuñ ko woon sax ci mujj bi waaye bañ ko daa joxee nii la daa demee ndax kilifa bu ne taalib bu ne taalib bi amul accès ci maa dem ci nguur gi ñaan courant ak seen kër ku ci sa kilifa nga dem seen kilifa yooyu itam ki fi nekkal Sëriñ Tuubaa dañu war a kooku jox ma kàddu ma war ko liggéey noonu rek la waaye moom li ci am solo rek mooy loolu moom suñu wàllu téeméer boo xam ne euh, ñoo ko wax mooy wàllu am loolu yëfi état yi yëfi Touba ndax Touba moom yaakaar naa la ñu war a def lépp ñu ngi koy def ndax Touba képp ngay dikk di dugg ci dëkk ba fekk ak opusaan ñu daan day après nga gis éclairage public ñun la daayira ba nga gis ay poste de santé ñun la ab daayira ba nga gis ay tëli ñun la ab daayira ba nga gis ay résidence ñun la ab daayira ba kon murid bi moom nangoo liggéey jàpp naa ci ñun la am kon nag màgget gi moom borom def na ko borom ñun nag li ngeen ci war a xam ne ni yéen a ngi ci kon ñu ngi dugg fi ñu ci toll suñu Ousmane ñoo ko suñu jaatu ñun ko ak sëriñ si fi waaye xam ngeen ne loo xam ne sëriñ Tuubaa ba mu koy njëkk rek génnatoon biir këram waaye daali woon na it ne màggal gi dem ba àgg foo xam ne ku dul man mi ko woote ak yàlla suñu boom bu bind nit doo xam dafay teew ci mbooloo tool xayma bi nga xam ne nag waa université mu waar loolu moo jur sax màggal gi tey ñu def ko fête ba ñu defee xayma ba la ko njëkk dañ daa wax naan màggal Tuubaa day daanaan économie yooyu ndax nit ñi duñ liggéey ba ñu defee étude bi nag ci lañ xam ne màggal bi day yëkkati économie bi keroog ko wax président Abdoulaye Wade man mu waaruloo maître Madické Niang ñoo fekk jotaay ba ñu bëgg julli ji àjjuma ko mu waxee ne ko màggal gi dañ ko defee dara dara dara loolu mënta nekk ndax Sénégal conflits yi dafay bari. mënoo defal Touba bàyyi fa des boo ko defee di indi coow mënoo ko bokkul man mii di wax yow bokkuma Touba kokki la dëkk bu fekkoon damay défendre kokki la lay défendre waaye Touba dafa tulluuti fenn wax joojee nag moo ñu topp ba léegi mooy dëkk boo xam ne dëkkub sëriñ la màggal Touba ñu xool lu tuuti ñu def ko fa bu jàllee ba déwénati Touba tulluutu foofu ndax dëkk boo xam ne dem nañ ba da na ngeen ne daaw bi ñuy def étude yi dañoo wax ne Tuubaa mooy ñaareel dëkk bi gën mooy Sénégal ba fa bii ñi def recensement bi ñuy ànd ak waa commune bi ak waa Tuubaa ci ak mbooloo mu ba dikkee ba rek recensement bi ngeen di def dafa baaxul bu fekkee baaxul nag ñun danañ jël suñu responsabilité defal suñu bopp ndax comme état buy natt day xool ñu dëkk ci dëkk ba gis nañ ne Tuubaa wóor na ne li fi dëkk mën na ñaari million yàlla def ñoom ñu def recensement bi gën nañ caa yóbbu yitte ba wax ne Touba léegi tey mooy dëkk commune bi yëpp ci Sénégal doonte la nag fa mu àgg lépp ñu bari bindul waaye baax na ba tey ndax lu ci mën a xew étude bi nga xam ne université Bambey def na ko daaw muy étude bu wóor boo xam ne ko dem bëgg gis kayit yi da ko gis fu wóor la tëjee bi ñu xoolee daaw màggal yi dépassé yi jëm ci biir kër yi rek dem na 74 milliards dépassé yi jëm ci kër yi dem na 74 milliards bu ñu xoolee xar yi ak nag yi ganaar yi dem na 33 milliards bu néewee bu néew kon loolu bu ñu xoolee budget total bi yëpp ñi defaraat kër yëpp ñi xaalis bi jóge bitim réew am na ci génn këru bu yónnee xaalis boo xam wax na ma ca làmb ñoom ne ñetti fan màggal bi trois milliards dugg na ci biir dëkk bi jaar ci moom benn képp banque yi xam ngeen ne ko fa dem day am jafe-jafe kon màggal Tuubaa li muy dugg ci réew mi ñoom ci seen xayma yi gën a néew weesu na deux cent quarante milliards kon deux cent quarante milliards yooyu képp jàpp naa ne xanaa ñaari at wala ñetti at képp bu ñu ko defoon war naa mën a defal dëkk bi te dëkk bi ko xam ko ne xam ne Tuubaa nag duñ jàmbat. ndax loolu Sëriñ Tuubaa dañu koo tere. képp ku fi nekk jiite réew mi boo defee lu baax dañ koy bu fekkente ne lañ séntu mot du tax ñu xaram la loolu moom suñ tubaab dañu ko tere na soxtu bi shukri shikaayatan balaa ashkuru duru yoo duru abada waaye bu ngeen di xool ci li weesu lépp ñoom ñëpp jàmbaar lañ leen sant nañ bu baax a baax ndax teraanga kenn du ko xew waaye buñ xoolee daaw bi fi mu àgg xam ngeen dëkk bi kenn moo kaar bi sax kaaru dëkk bi sax dañu koy tëri assainissement bi itam xam ngeen daanaka dëkk bi baatum suñ ko waaye xaw naa yokk dara ndax boo demee ba kër yi wër jumaa yi feeñ ñu def na cérémonie officielle fa ñu teg baax ba daanaka lu jege téeméer million ñoo ko ciy bëgg a ñàkk ngir mën fàtte baax kon xam ngeen loolu bu mu ci jublu dëkk bi dañ di yàq loolu nag responsabilité état bu Sëriñ Tuubaa la loolu état ko wax kon loolu itam nañ ko gëstu te saytu ko te xam ne ndox mi li muy baax baax baax réussi bu baax moo ko gën ndax 38 forages wala 37 la xam ngeen xëju ci Tuubaa ndax capital région xool ay fukki bi dafa yàq am na ci foo ne ñu ko gas wax ne boo ko laalee moom nga wax boo demee tey chrétien bu daal ndox maa nga ci biir nga dem ko sëñ bi ndox maa nga ci biir armeel yu bari yàqu nañ ndax ndox mu bari boo demee que suñ saa ndox maa nga ci biir suñ Cheikh daa toog lu fa def lu leen lañ def daaw jël ngir mën faa taxaw boo demee fépp ba ci pénc mi daal xoos comme ndox mi mi ngi bëgg yàq dëkk bi comme loolu mooy sax li gën a jëm ko mooy assainissement bi comme loolu ñu nekk ko fàtte ndax màggat yi day loo xam mooy Sénégal ndax ginnaaw jaamu yàlla gi ci Serigne Touba wax la mu ci deere waxoon ko Cheikh Mouhamadou Moustapha ne ko bu ñu demee ba ëllëg àjjana amatu bis waaye ci kàttanu yàlla yàlla mi nga xam bi moo bindoon adduna képp ku daa sonn ci sama bis bii da gis teraanga yu doon ko ci yow yoo da nga gis beneen kon màggal gi jàmm bu amee ci Sénégal dëgg dëgg dëgg kenn tudd fi wàllu benn Sénégal gépp nekk benn màggal gi bokk na ci suñu ni ci woon loolu ndax étude bi wane na ne cinquante six pour cent yi ci ñi màggal ay wolof la vingt deux pour cent yi ay séeréer la onze pour cent yi ay alpulaar la cinq pour cent yi ay pël lañ trois pour cent yi ay joolaa lañ un pour cent bi jeex mooy yenn xeet bi ñu xoolee màggal gi itam wax nañ ne quinze pour cent doonuñu hectare bi Sëriñ Tuubaa seen bokk jullit dañ ñëw ànd ak ñu màggal un pour cent yi nekkul sax ay jullit fa kon loolu lii gën a dëgëral lii gën a dëgëral bennoo Sénégal màggal Tuubaa suy di ci war kon nag ñaar ñu ñu ñaar ñu ànd ba yàlla dimbali ci ba ndam luñ ci daa ñu am ci lu ko yéen ñi nga xam yéen a ko taxaw itam suñu borom dimbali leen kàttan ak ba lu ngeen ci daa def mu gën a yomb ci yéen ndax xam nañu tolluwaayu réew mi fi mu toll moo tax am nañ ci soññoo yu am sax du jar àgg te ndax seen daa bi daa ku ne la jàkk bu ko a gëstu hmm. nit bu fekkente ne xam na jàngoroom xam la ko ci wax foofa bu ñu doon ak si biiru Sonko foofa lañ ci yaakaar salaamaaleykum wa rahmatulah